gis nga le combat euh, pour le pour, la défense des droits des femmes. Mmh. Euh, que ça soit leurs droits économiques leurs droits sociaux. c'est pas un combat des femmes contre les hommes. Mmh. moi je pense que c'est un combat d'hommes et de femmes épris de la justice mmh. sociale. pour euh, euh, ça pour régler des inégalités sociales. loolu la war a nekk. képp koo xamante ni jigéen nga wala góor mag wala ndaw nga xamante ni li nga xam ni bëggoo ñu teg la ko yow si sa bopp. Mhm. bu bëggoo ñu teg ko keneen. Mhm. da si war a bokk. Mhm. te si loolu la ñu nekk. te loolu moo tax ñu jógee si aar suñu élection euh, tàbbi si si si si si plateforme bi. plateforme euh, parce que aar sunu élection lan la woon c'était une question de. de de défense de droits humains à la fois et de l'état de droit. Euh, jigéen ñi nag amoon si jom lool lool takku si lool lool lool te même avant ak suñu élection sax jigéen ñi déjà defoon nañ euh, bébatoon nañ euh, de bi ñu dégloo bi ñu participer ci yenn audition candidat yi ak juste avant ñuy supprimer élection yi bi ñu dégloo si yenn candidat yi ba pare li ñu wax mooy nañ leen tase mm-hmm. ñun jigéen ñi nga xamante nii dañuy liggéey sur la participation des femmes le développement ñu defar benn document d'orientation jébbal ko candidat yépp ndax li ñu dégg candidat yi di ko wax si wa mbirum jigéen ak xale bu jigéen dafa oyof mm. bi ñuy mbébét loolu euh, si la problème euh, kii am élection yi am ñu nekk si loolu pare gis nañ euh, li xew élection yeeg yëpp tout tout tout s'est passé très vite. Mhm. mais xel quand daloon na euh, parce que dañu bi bi ñu gisee passation bi am lépp am ñuy wax rupture euh, xel daloon na ba ñu gis euh, publication liste gouvernement bi loolu nag surprise la woon muy loo xamante ni si daf ñu alerter. parce que fi ne nii dañu wax préservation des acquis dafa am des générations de femmes yu fi nekk di xeex ba jigéen commencé di toog place am donte pareegul parce que am na lu bëri Sénégal euh, loo xamante ni war nañ ci liggéey ci wàllu wekk jigéen ak ci wàllu valoriser connaissance ak capacité jigéen ak ci wàllu respecter jigéen Parfois, il suffit de travailler au, au, dans un cercle donc pour s'en rendre compte que jigéen ñi lu bëri war nañ ko def ci wàllu woowu. léegi nag euh, bi ñu commencé ah ñu alerte entre nous wootante téléphone waxtaan ñu ne nañ leen alerter ah léegi ñun dañu nekk ci état boo xamante ni ci dafa am ay procédures yoo xam ni bu nit ñi dafa am lu ñuy manifester woo. si lañ dem si lañ def benn déclaration commune mhm. déclaration bi bu ñu ko defee mën nañ ne ci njëlbéen ga sax ay organisation de femmes la ñu woon mais dañu dem ba ubbi ko femmes yépp ku bokk organisation ku bokkul organisation femmes yi ci gox-goxaat yi femmes yi ci organisation yi ñi nekk seen bopp organisation ñi liggéey si organisation internationale yi ñiy liggéey ci part ñiy liggéey ci gouvernement bi ba ci ñu bokk ci parti politique bi am na mm. femmes yu bëri yu nekk Pastef yoo xamante ni tey ñu ngi ci plateforme donc ça veut dire que c'est pas un combat politique nekkuñu fi nit ñi dañuy wax ni yéen da ngeen gaaw ndaxte ñii ñu ngi ñëw matagul sax un mois ngeen commencé mais ñoom tamit dañoo ñëw bu sax un mois si wàllu jigéen ñu wane seen bopp. donc comme ni ñuy wax am na loo xamante ni il faut euh, couper l'herbe sous les pieds mun naa am du mauvaise fois mais moo tax nag ñu yëkkati suñu baat pour que bu leneen di dem correction am ndax correction weesu dëgg la gouvernement bi teg nañ ko ba pare néewuñu kenn tasal sa gouvernement mais am na yeneen yuy ñëw. am na nomination yaa ngi ñëw nañu sóoraale femmes yi nga xamante ni si compétence la ñu feese dell monde bi boo génnee femmes sénégalaises yi dañu leen di xëccoo elles sont bilingues elles sont compétentes elles sont focus te loolu je parle que les femmes hautement instruites de mmh. niveau académique recherche yoo def tey mënoo see jëlee jigéen ñi mm-hmm. ñu ngi bind ñu ngi xalaat ñu ngi contribuer mm-hmm. nga jóge foofu nga dem ci gox goxaat yi nga fekk fa ay vrai jàmbaaru fakk tëdd mm-hmm. ñu yor kër yi nag di daw dépense boot njaboot gi boot société bi yor tool yi yor waañ bi femme yooyu euh, nañ leen nañ leen sóoraale ñi nekk ci culture euh, agriculture bi ñu nekk ci élevage bi ñu nekk ci transformation produits halieutique yi ñu nekk ci transformation euh, produit agricole yi ak les autres produits dérivés kon dëkk bi femmes yi dañ kaa yor donc mënuñu fi def dara loo xamante ni dañuy euh, féetale jigéen ginnaaw loolu moo tax ñu génne une première déclaration aujourd'hui bu nekk plus de huit cents signataires toutes catégories de femmes et d'hommes confondues parce que am na tamit ay jigéen ñu si nekk pour que ñu wane suñu jàqare beneen étape bi mooy bu fekkente ni yow da ngaa soulever problème problème boobu participer ci liy résoudre li koy résoudre bu ko defee dinañ joxe benn mémorandum boo xamante ni c'est des orientations xeex bi lii rek lañ si namm nammuñu si leneen mm-hmm. donc bu ko defee euh, dañuy wax ni euh, gouvernement bi ana compétent yi mais est-ce que mën nañ ma wax ni Sénégal gii mënuñu fi am femme compétente ah bon moo ma jaaxal parti Pastef boobu sax xanaa mënuñu ni wan ni mënuñu fee am plus de quatre femmes compétentes ñi fi jël de ñi ñu jël fan leen euh, kenn dénigré wu leen parce que xam nañ lan lañ jaar d'autant plus la le ah, l'appareil politique euh, qui est parti à la présidentielle c'est pas seulement un parti politique. non non c'est une coalition. c'est une coalition coalition yooyu am na jigéen ñoo xam ni foo teg góor ni ko defal benn di nga gis jigéen bu fa toog def fukk. te coow du jub. jigéen ñi nekkewuñu fi Mumbai te pour ñëw si affaire Mumbai boobu noonu mais qui a transformé les femmes en machine d'applaudissement mm. ce sont les partis politiques tey bu ñu nee waxee parité au lieu que dañu wut. des femmes de qualité yoo xam ni bu ñu taxawee amba euh, bu ñu taxawee fële bu ñu taxawee euh, assemblée national mun fa défendre des politiques publiques mun orienter représenter fa peuple bi parti yi ñooy def exprès teg ci assemblée bi ay jigéen ñu leen di xeexal mm-hmm. ak ay jigéen ñu ah, leen di euh, yi di saagaal ak ay jigéen yoo xam ne apporté wuñu fi benn valeur ajoutée mm-hmm. loolu tamit dëgg la boo xamante nii dañ ko war a waxtaane donc loolu lépp nag dafa war a bokk ci rupture bi te rupture bi du question gouvernement bi rek ñëpp c'est ça doit être une chaîne ñëpp da si war a jàpp citoyen bi foo nekk da si war a jàpp concernant le problème avec le ministère de la femme mm-hmm. maram ñëwoon na si sànq yow jël nga ministère de la femme nga jënd yi fa nekk def ko ministère de la famille et des solidarités solidarité ku nekk xam ne lan lay signifier si Sénégal c'est des actions sociales yow bala ngay may chaque jour jën nit da jàngal nu muy nappee mhm. yaa am na benn encadrement euh, social boo xamante ni ça maintient les population dans un état de dépendance et de pauvreté mhm. il faut créer des richesses et créer des activités économiques pérennes donc loolu aussi benn loo xamante ni junj nañ ko nga ñëw ci ministère de la famille mais jigéen c'est vrai la femme est le socle de la famille Euh, entre autres parce que tamit jigéen ñi ñu ngi ci industrie bi jigéen ñi ñu ngi ci commerce bi jigéen ñi ñu ngi ci entrepreneuriat bi jigéen ñi ñu ngi ci euh, plateforme scientifique yi et ainsi de suite ainsi de suite donc aujourd'hui bu fekkente nii dangaa supprimer ministère de la femme ñoom ñoo tax lu tax nga supprimer ko parce que ñoom dañu am seen orientation politique et stratégique mm-hmm. ñu leen koy nungul mais nañ teg ci nañ teg si loxo loxo jigéen ñi lu leer supprimer supprimer nañ ministère de la femme de façon transversale mhm. comment ils vont intégrer euh, les politiques de de de les politiques spécifiquement euh, conformes aux des femmes et des filles ñu koy wax gender mainstreaming mhm. parce que bu ñu demee ministre du commerce na ana naka la ko femmes yi euh, di di di bokk bu ñu demee ministre du des finances naka la ñuy mën a defee une budgétisation sensible au genre. te mm-hmm. en parlant de genre nous on on évoque les besoins spécifiques des femmes et des filles ndax loolu moo ñu yor. Mm-hmm. donc c'est un grand chantier boo xamante ni on invite vraiment ce gouvernement à ne pas faire moins que leurs prédécesseurs. que leurs prédécesseurs ça c'est le thème.